وجللاي مسكني تبابات Touba ca kanam ay taalibe ñoo ne ca gannaaw di liggéeyal sëriñ bi seen bëgg-bëgg mooy dëkk bu bi di Touba Mbacké di gën di jëm kanam ci fànn yépp bu dee wér-gu-yaram ñu ngi ci tabax ñeenti poste de santé sax liggéey bi sori na ci def ci ay tollu ci téeméeri million ak juroom fukk benn bu ci nekk. ñi ngi sant yàlla bu baax bi ñu defalee hôpital bi ci Touba Lansar ndax jigéen ñi bu ma saan tollu diggante bala ngaa am am na ñoo xam bala ñoo am oto rek bu leen di yóbbu hôpital su seeni mbir gaawee mën nañ koo def ci oto ba kon tey bu ñu ko nii ci Touba Lansar nga xam ne ba wëlbatiku hôpital baa ngi nii macha allah war nañoo sant yàlla bu baax a baax a baax hôpital bu mucc ayib lépp lu war a am ci hôpital am fa taxawaay bu rafet liggéey bu rafet bu am solo kon war nañoo gën a góor góorlu ci liggéey bu Touba Ca Kanam bi jàppaat ci bu baax a baax a baax ndax liggéey bu toll nii ñu defal la ko te laaj ñu la ca lu weer ñaar téeméeri dërëm war ngaa góor góorgóorlu bu baax a baax. ay ambulance ñu taxaw ci jéppal ko sapeur pompier boole ca ñaari woto. yuy fayuk lak liggéey bu am solo bo xamne wa Touba ca kanam ñoko def jëmele ko ci sapeur pompier waye itam jëmele ko ci askan wi yëpp mom mo waral general bi nga xamne moy lif pompier yëpp egg gi mu ko egg ak solo ji mu am tax mu yabal fi colonel morsek bi nga xam mo top ci mom ak man mi nga xam mayor région de Thiès ak Diourbel ànd kook sama collaborateur yi ngir ñew teewe liggéey bi am solo bi nga xam ni waa Touba ca kanam def nañu ko muy euh, ci volonté chef de l'État bëggoon département bu ne mu ubbi fa caserne sapeur pompier ñoom daa mel ni jiitu nañ ci loolu ndax ñoom xaaruñu état xaaruñu dara dañoo dem ci seen i volonté bopp ak seen yéene askan wi ak xam solo si dëkk bi am ak dayoo dëkk bi tax ñu dem indi ñaari camion sapeur pompier boole ci ambulance foofu dinaa fa taxaw tuuti ndax dinaa wax euh, capacité camion yi. toll nañ bu nekk ci huit mille cinq cent litres. ku ne xam na ni huit mille cinq cent des camions de grande capacité yoo xam ni vraiment. si jumtukaay yi état bi jënd. buñ ci doolee ko mel na ne dina gën a gën a yombal suñu liggéey. ñu leen ciy sant di leen gërëm ci turu chef de l' état turu ministre de l' intérieur waaye itam ci turu colonel euh, général Victor Tine bi nga xam ni mooy yilif sapeur pompier yëpp. ñi amé jangoro joju ñu naan doy di roño ñu jël ci ñaar fukk ak juroom ñet yobbu len topoto senu pacc ci anam ni mu waré yeen wa Touba ci kanam di ngeen nu yobante woon nak jot nañ ci. wër wëpp jëndu na ci pikir bunte de dañ am taw féexi nelaw ba yew way fi mu nekk bun bun bun war sé dik di jalis ya nga xalaat pikir bi ya nga xalaat santay ya nga xalaat passe taxi. docteur mom day bind rek. di nu tegal boo tëddee da ngay xalaata xalaata xalaat ba nelaw yegg sax doo ko nelaw loolu lépp metti na ñu di leen ci sant di leen ci gërëm ci li ngeen nu defaloon a ah, bëgg na nag ku nu dolli ndax bu ngeen nu dolli woon ne dana am xéewal lool tàllal nañ leen suñu loxo di leen ñaanal xéewal di leen ñaanalu wér ab centre dialyse ñu tàmbali ko ci dëkk bu sell bi Touba ci kanam jël infirmier yi ca war a liggéeyee yóbbu leen ñu tàggat leen formation juróom benn weer la ñoom sax xaajal nañu seenub liggéey. maa ngi tudd Yamar Diop formation dama ñëw fii stage ñu Touba ci kanam ngeen sant bu baax ñaan ngeen daj ngeen daj ci tawfeex Sëriñ ak ak ngërëmam. malade yi biñ tollee ci koor jaaxle woon nañ lool ngeen jàppale leen ci weer woo xam ne pikiir yëpp waa tubaa ci kanam ñoo ko gàddu dégg nga ni ko soxna si leerale. ginnaaw bu ñu leen santeet ci loolu tamit centre bi nga xam ne ñi ngi koy defar te doon leen ci woo wuy si ngeen ñu ndax infirmières yi nga xam ne ñoo fi war a faj ëllëg jëlal ngeen ñu ci ñaar ñoo xam ne ci koor gi commencé nañ di def seen estage di def formation yoo xam ne buñ noppee ñi fi ñi fi war a faj duñ dem di leen jëli feneen day fekk pare nañ ba pare loolu liggéeyu waa Touba ci kanam la waaye nag sëñ Fallou ñu di la yóbbante di la yóbbante ci mbooleem askan wi nga soññil ñu leen ci ñu jàpp ci centre bi ndax centre bi du liggéey bu ndaw te Touba lañ koy defal te yëfi Serigne Touba mu doon loo xam ne dañoo bëgg bu noppee maanaam dëkk bi kenn dootu wax ni amatuma fu ma fajoo di gàddaay di dem ci biti wala ngay dem ci àll ba wala yàlla di def li gën ci yow. ci ndimbalul Touba ci kanam ay njaboot yu bari di yeewoo ci dëkk bi ñu leen di jàppale ci fànn yu bari man la nday Rama Ndiaye dama fi but, problème problem ak problème tank ndax dama yoré suukar diabète légui nak ma demone ba mour sama ñaari beut yépp gisatuma fuma dem fu nek dañ ma fay yob léna bima déggé wa Touba ca kanam ma ñew wax leen samay soxla ma expliquer leen léne dama damaa ngeen jappalé ma ñëpp ñu obligé wu jappalé ma ci ba ma yoraat sama ñaari beut di xol légui nak lolu mom man Touba ca kanam awma seen fay keneen ku man di doon nag ku liggéeyal sëñ Touba rek war ngaa mën a ñëw bokk ak ñoom mbir mi. misaal bi weer ak ñaar di liggéey ci biir jumaa ji ñu leen di taxawu saa su ne. di leen xamal ne jëf yi mu ngi agsi bu baax a baax si mboolem ku yëngu ci jumaa ji rek seen jëf seen loxo mi ak ci moom ci weer wu nekk. kon daal li ñu bëgg a xamle foofu rek mooy sas boo xam ne dañ ko topp ngir yàlla ak liggéeyal ji ak liggéeyal Serigne Touba te xalaat ne ko jaare ci ñii di ci biir jumaa ak ci bi ñu wax ne loolu agsi na ci noonu. weer wu nekk loola ngeen di joxe ngir mu jëm ci jumaa ji mi ak suñu baax a baax baax. njàngum alxuraan ku ne xam na sëriñ bi ni mu ko fonke woon. Touba daara la man si na wax ci gàtt rek moom daara la sëñ bi bu mu koy sanc li ci jubloon mooy fu mën a laqatu ba mën a jaamu yàlla mën a defaru defar ñi ko topp maanaam fu mu leen mën a tarbiya kon kon daara la kon nag képp koo xam ne jóg nga di ne da ngay liggéey sëñ Touba tàmbalee ci daara ya taxaw leen benn taxawaay bu rafet bi kon la ngay wax dëgg la. tànn nañ ñaar fukki daara ak juróom-ñett ci dëkk bi tànni woo xam ne tànn wu maandu la bu jub la bañ leen tànnee ba noppi ne fenn fu ci ne dem nañ fa yebal fa ay ndaw yoo xam ne xool nañ ba gis lañ gën a itteewoo ñoom daara ja ñu seet ca lañ ca mën ñu def ko ca def ci somb bu am solo ngir defaral leen fajal leen seen aajo yooyu muy lu am solo loo xam ne ñoom tubaa ci kanam ñoo ko fi njëkkee tubaa Touba sosoo ba léegi. musuñoo gis mbooloo moo xam ne jóg nañ di taxawu daara ji taxaw daara taxaw bu am solo nii te ku ne xam ne daara mooy alali Sëñ Tuubaa dëgg-dëgg ji nga xam ne moom la gënoon a fonk kon ñoom li ñuy wax loolu rek bu fekkoon ne ci la yem itam eh, ànd ak ñoom daf koy daal da koy daal di jar. lu jëm ci wàllum cet gi ba tey ay wanag ñu taxawal ko ci wetu jumaa ji loolu yëpp gën a jàppale taalibe yi la. di sant bu baax a baax a baax waa Touba ci kanam ci lii ñu defal ndax tey ji boo ñëwee ci jumaa ji bi li ko wër lépp amul benn benn wana boo xam ne mën nga fi ñëw mën fi faj sa aajo mën a yeeslu mën a dem ci jumaa ji kon lii bu ko Touba ci kanam defee ngeen gis ne fii ni mu meloon ak ni xam ne melokaay bi nga xam ne meloon na ko ñu ñëw ko war fee defaraat wana yii nii kon dañuy sant Touba ci kanam bu baax a baax ku ne xam na ni Touba Mbàkke dëkk la bu yokk ci ab yaatuwaay ci limub askan wi gox yu fasantiko yi ne ci dekk bi ñen ñi amon nañu jafe jafé ndox bobé jafe-jafe ñu bari ci ñom wessu nañ ko man soxna Fatou kan dëkk sanc Daaru Rahman sonn nañ torop ci ndox am ci fukki at ak juroom ci tak saretu mbam de roti di yan wax deug yalla am nak bañ ko commencé légui nekk Touba ca kanam ñu indil ñu ndox boobaak légui noppalu nañ kene jogatul fajar kene yenoo tut kene defatul dara ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm. lu aju ci gën a seetal dëkk bi juróomi wootey mbalit yu mag ñoo fi wuutu sareet yi daan dugg ci biir kër yi di an mbalit yi askan wi daan dund boobu jafe-jafe te jamono ji seenu naqar dëddu na leen. man la aw Touba Diop nekk fii ci Touba Paleen yéen waa Touba sa kanam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax dañ daan am suñuy mbalit sareet yi tey dañuy ñëw tey duñ ñëw yéen nag bi ngeen fi indee juróomi cap yoo mbalit suñuy mbalit eh, dëkk bi dafa set xanaa kay ngeen dooli ko bu baax a baax. ba tey ci lu gën a ñoŋal nekkinu askan wi junni làmp taxaw nañu ci lañ ci bëgg gën a leeral mbedd yi. dama cee yéemu ci Touba ci kanam bi ngeen àggee nag ci euh, kër gu ne ngeen bëgg boroom ba def ab làmp ci buntu këram boobu xalaat moom bi ma ko déggee moom ci laa gën a yéemoon ak ci li ngeen leen lépp làmp yi dugal naa ci téeméeri junni ngir leer gi ngi ngeen bëgg leeral man ci lay bokk ci leer gi lay dund ci leer gi lay dund ci leer gi lay dund kon war naa ci def dara seen dafa am solo tur wu doy waar la doy doy waar Touba ci kanam tur wu doy waar la lu ngeen message rek naa ko sasoo jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw leen góor jërë gen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf tubaarkalla ah tubaarkalla liggéey bi moom tubaarkalla ah, alhamdulilah loolu xel baax a baax naka jëkk mooy tàmbalee rek la si amoon yaakaar yaakaar dana wuteeg kuréel bu mën a jóg jëm ci loolu yaakaar naa ne wut ak ah ngeen bëgg a do do donte da ngeen di da ngeen di mën war fu ngeen bëgg a àgg màgg rek dina fàgg incha allah waaw waaw waaw. sëriñ bi nee na Touba ko dama dama dama cee dolli dama sama bopp fukk juróom-ñeent ñoo xam ne ñu eh, saadix la doon. mu saadix moom fu mu fekk liggéeyub Serigne Touba bëgg na caa bokk. mu daal wut juróom-ñeenti murid saadix yoo xam ne juróom-ñeenti murid saadix yoo xam ne am na yaqin ci seen pësteef te mën naa am lott nañu ci li ñuy laaj ñu joxe ko te te mën naa am lott nañ ci lii ñuy laaj ñu joxe ko tàmbalaa ci ñoom juróom-ñeent fukkeel leen mu ne ñooñu tàmbalan ci ñoom juróom-ñeent ak moom mi mu fukkeel leen lu ñuy laaj taalibe yi rek dana ko def mu ne lu ñuy laaj taalibe yëpp rek moom dana ko dana ko def dana ko leen ko defal te yéene taalibe yëpp itam a gàttandoo suñ borom gën leen a gàttandoo ak tawfeexu sëriñ bi lépp gën a yomb lépp gën a yomb lépp gën a barkeel noonu rek la demee lépp waaw loolu yéen la waaw est-ce que waaw waaw. wax déggal ngeen bopp. ñaan lañ ci biir laa bokk. wax na yaakaar ji am ci mbooloo mi. kon jox na digal taalibe bu ko man loo ci mën nga jëf ko. moo ko wax ci làmb ndax jëf ju àgg Sëriñ Tuubaa kon nag ñu ngi leen ñu ngi sant ci turu sëriñ na naa ñaan itam ci barke Sëriñ Tuubaa. naa lii ngeen am te dara génn ci dëkk yi. yàlla na ko suñu borom mottali. yàlla na Sëriñ Tuubaa defal ndimbal. ba mu àgg fa mu jëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Touba kanam di moomeelu bépp murit wajalilaayi maskani Touba misras mi abijaayi xayri ma nabaat